verdict bi jib na conseil constitutionnel daal dina neenal décret présidentiel bi nga xam ne moo dax élection yi ñu waroon amal ñaar fukki fan ak juróom ci weerum février ci ndogal li nga xam ne jël na ko ci alxamis bi ci article 2 conseil constitutionnel jàpp ni loi bi nga xam ne voté nañ ko ci assemblée nationale méngoowul ak article 31 pour constitution bu Sénégal ci article 3 bi conseil constitutionnel daal dina neenal décret numéro 2024 106 ñetti fan ci weerum février atum 2024 nga xam ne mooy abrogé décret bi waroon convoqué corps électoral bi ci élection présidentielle yu ñaar fukki fan ak juróom ci weerum février ci fàttali njiitu réew mi président Macky Sall dafa moon ab décret ngir dàqandi élection présidentielle fii ba fukki fan ak juróom ci weerum décembre atum 2024 gannaaw gàkk-gàkk yu bari yoo xam ni am na ci processus électoral bi ay candidat yu bëri ànd ak groupe parlementaire bu yeewi askan wi daal di déposer ay recours ca conseil constitutionnel ngir wane seenum ñàkk ànd ci loi bi nga xam ne mooy daaxani élection présidentielle ci bu muy génnee ndogal bi nag conseil constitutionnel dafa wane ni loi bi nga xam ne voté nañ ko ci assemblée nationale méngoowul ak article 27 ak article 103 bu constitution bu Sénégal bi ci njëkk mu ngi wax ci durée mandat président beneen bi di xam ne ni mënuñoo yokk wala ñuy wàññi mandat président de la république. wante conseil constitutionnel jàpp na ni diggante bi xat na mënuñoo amal élection ci date bi nga xam ne moom la ñu jàppoon wante mu ngi woo autorité yi ngir ñu amal ko ci nu mu gën a gaawee.